moo wax ne saa su may jóg dinaa ñëw ci ki fi nekkal Serigne Touba tàllal ko sama loxo ñaan ko mu ñaanal ma te saa su ma ko defee su ma demee am ndam dellusiwaat sant ko gërëm ko ci loolu le président de l'histoire du Sénégal président de la République Macky Sall benn firnde rek mbaa ñaar boo xoolee ci juróom-ñaari at jël na lu ma 35 postes électriques ak des centaines de milliers de kilomètres def ko ci Touba ak Mbacké Mbacké gii Salaam yi def na fi 26 kilomètres électrification dugal nañ fi juróomi kilomètres ndox mairie bi taxaw poste de santé tàmbali na yoon wi lotisi na marché bi la ca wax lépp rek président de la république jàppale na Mbàkke ba ñu am financement 7 milliards pour un benn université bu bees fii ci Mbàkke jàppale na Mbàkke ba ñu financement bu 10 milliards 200 millions pour projet d'assainissement assainissement Touba Mbàkke tabaxal nañu benn lycée franco-arabe moderne tabaxal nañu daara moderne jàppale nañu ba am financement banque mondiale ak AFD à hauteur de 1 milliard 63 millions président joxe instruction pour ñu jël Mbaké promouvoir 5 km pour biir voirie wante président joxe instruction ba programme ci budget 2019 pour defar tali bi nga xam ci la sëñ jaar yoon wi mu jaar bu daan jógee Mbaké dem Touba moy tali bi leeru raay joxe instruction ñu défar yenen tali yi nga xamanteni mag ñu baax ñi dañ faan jaar Touba 416 milliards autoroute Ila Touba 9 milliards de francs CFA à première tranche assainissement Qui ci nawet bi 1 milliard 200 le programme d'urgence pour nous, jël ndox mi Kër Ñang ak Madiana 10 milliards 200 millions pour que ñu defar assainissement Touba Mbacké ba projet bi commencé 42 milliards pour ñu tabaxal un hôpital 300 lits bu vocation non seulement nationale mais sous-régionale daf na jël en compte les maladies sous régionales wante président am yéene yu gën a kawe loolu ci Touba mbakki kon nag fii ci commune mbakki def na fi loo xam amul benn président de 1960 jusqu'à aujourd'hui def na ko moo tax population yi yeewu nañu jël nañ ay seeni responsabilité pour jóg jàppale président pour mu am ndam ci premier tour le 24 février wante loolu suñu xel dafa dal ndax dañu gis ay responsable yu mag ku mel ne soxna Ndeye Diop ku toll ne soxna Olimata Diop lim liggey ci social lim liggey ci diine li accompagner ci ay nit ci développement ñew aussi pour renforcer ñu ñu gis and bi am Mbacké muy le directeur général Galouba madame bay amon Ndiaye Angloma ministre Moussa Sarr ak ñepp ku melni ministre pap Diouf ñëw renforcer équipe ak mboolem leader ñepp kon sonn si xel dal na ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu mucc ak tawfeex ba vingt 24 février incha allah rabbi ci heure bii fekk ñëpp di manifester victoire président de la république au premier tour ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf